ilaahina rajiun di jale famille bi nga xamni kuy perte ñoo gëna perte waaye Sénégal yépp perte ndax benn bakkan bu génn ci circonstances yu mel nii ak si yu mëna a nekk itam aduna mo perte Sénégal la perte nuy euh, ñaan que ni itam jitu réew mi ak euh, autorité yi nga xamni ni ñoo fi ne nga xam ñom ñoo garant de sécurité manam ñoy saytu suñu sécurité euh, ñu dimbali population bi nag ndax yi mi ngi commencé bari ndax niko niko président waxee légui liste bi bu ko topone duñ fi jóg. Euh, euh, bakkan yi di faatu noonu ci condition anam yi demee noonu dafay xaw a ñuy ñaan njiitu yi bi mu jël ay mesures yu adéquate par rapport ak euh, yi nga xam ne moo fiy xew ci ay bakkan yuy dem ndegam jur sax jur gi sax bu ñu doon faatu ci yi mel ni dina taxaw dina taxaw seetlu waxtama ak ay doomi aadama yoo xam ni gaañu ci condition yu yu doy waar yi ñu gis la léegi même pas ay waxtu nga jóge fi ñu koy ñaan moom it ci pouvoir bi mu am ak ministre la justice yëpp ñu jéem a taxaw xool loolu comme que dañuy tënk rek ñu parce que li ñu bëggoon wax yëpp président wax na ko euh, ci kuréelu ci euh, baatu ASFET ak ci turu tout la famille avocat yooyu ñu jël wax leen nañ ko toppatoo ñoom itam ñu dooleel leen bàyyi leen dossier ñu xam lu ñu koy lijjantee waaye ñu réew mu itam daal di jël ndaw euh, yabal ko fii mu xool kër gi nan lay demee ak itam ñi mu fi bàyyi ay yaayam ay rakam ay doomam ak yooyu le ñu defal seen xel. mbir bi manam ñu tijji ci enquête enquête bo xam du am nak ben pété kenn du jël mbir yi ne dañ koy dénk alkaati par feul mbir bi xewé manam enquête bo xam ne njaaxaanaay lay tëddee loolu ben la ñaar ñi ngi demander procureur de la république daf ci am responsabilité parce que procureur de la république mom moy contrôler la détention mom moy maître des poursuites mom moy kilifa police ak gendarmerie luñ def ci ndigalam kon mom di ay dossier di amé mu génne def conférence de presse na génne def conférence de presse parce que mom moy maître des poursuites moy premier responsable parce que mom moy jox ndigal police ak gendarmerie bu loolu wesso ñu wax né Cheikh bi nga xamé né yalla suñu borom def na bakkanam dess ci urgence bu la dantet ba légui gannaaw bi ñu waxtaanee ak wayjuram bu jigen ak ay mbokk biiram xamal nañu né boobu ba léegi teguñu bëtt Cheikh kenn gisu ko loolu tey na xel limu tay xel moy amana dañ né buñ ko gisee mën nañu gis si yaram bi ay gaañu gaañu wala ay gom wala genre mbir yooyu ñu wax ko presse bi ñu xam ne dañ ko doon xoxotal loolu lañ si bañ moo tax ñu ne leen doo leen gis seen doom te ba tey ba suba ba gannaaw suba amul benn membre famille bi si li ñu xam ñoom ñu wax ñu ko ne gis nañu seen doom ñi ngi demander également ñu def li nga xam ne moom mooy contre expertise genre mbir yi bu amee benn docteur moom mooy def expertise ñu ne suukaram moo yéeg suukaram moo yéeg ñun nanguwuñu ko tey nanguwuñu ko suba te famille bi it yaayam ak ay mbokkam xamal nañu ne loolu ñoom duñ ko dégg sax benn nopp ñu tey suukar ñu ko gannaaw suba suukaram yéegul cheikh ku amoon kattan la ku dara dalul woon la mi ngi commencé am jafe-jafe keroog bañ ko dugalee ci commissariat bi lii ak salte bi nga xam ne dañ koy nemmeeku souvent ak xet gu bon gi ci yenn commissariat yooyu yëpp di salfaañi ak ak yelleef si nit koo xam ne tugal nga ne woon di daan sa doole buñ la dugalee si ay commissariat wala kaso yoo xam ne comme ngonu ginaar c'est tout à fait normal nga am ay problème wér gu yaram donc kon li sabab li njëkkali mooy problème mu wér-gu-yaram bi mooy xet gu bon ak xoxatal boo xam ne xoxatal nañ ko beneen docteur aussi dina def expertise jabaram mi ngi l'hôpital ñi ngi suivre mbir mi bu baax avocat yi ñu ngi ciy taxaw contre expertise boobu souvent famille yi ñoo koy fay mais dañ ne lu mu laaj ci alal lu mu mën a laaj ci alal rek loolu dina génn tegu ci taabul ji pour que ñu def ko ba ñu won waa àdduna ndëpp ne Cheikh dañu salfaañi ay axam ak ay yelleefam maa ngi leen di sant di leen gërëm wérul waaw xam nga waa xam nga xam nga xam nga xam nga wax naa leen ko sànq bi may tàmbali nee naa leen yoon bu ñu yoon bu la tegee loxo garde à vue yoon bu la tegee loxo dafa am loo xam ne yoon moo la ko may mooy avocat ñëw toog mooy ñu xamal la ne la yow Cheikh Niass da nga am droit docteur ñëw xool la docteur bi ñëw xool ko mais loolu lépp doomam ak ay mbokkam seede nañ ne loolu amul donc yow nit koo xam ne sax même moom dafa feebar doomam wax na loolu ci biir kaso bi téye nañ ko laaj na ay garbam ñu bañ na duñ ko jox lool rek déjà police salfaañe nañ ay axam ak ay yelefam lool rek salfaañe nañ ay axam ak ay yelefam té ñing koy dénoncer parce que doomu aadama la dafa am bakken té état de droit lañuy wax état de droit moy égalité devant la loi lool nak li am ni ci mbiru Cheikh da fay remettre en cause formation policier formation alkaati kat parce que policier bi war na mëna nek professionnel même bu féké l'individu est rebelle ñu former la tagat la ba yow nit ki même lu mu déconné déconné yow war nga mën a naxante ak moom récupérer ay papier dem police toog di ko xaar cheikh bu ñëwee nag nga jàpp ko ndànk dugal ko ci giri bi loolu mooy professionnalisme mais dañu gis ne alkaati yi souvent usage de la force la ñuy def te lépp lu yoon di tere takk der yi ñoom ñoo koy def fii ñëpp xam nañ Sénégal ne ay ñaar téeméer ñeenti téeméer ku ko yor doo guddee stali bi ça c'est la triste réalité lépp lu ñuy tere it également ñu ngi leen siy gis donc kon ñun ñi ngi demandé enquête bi leer nañ ñi nga xam ne ñoom dañu jàpp ne seen mbir loxo dafa takk ci mbir bi ñu teg leen ay daan yu diis a diis ba lii nii dootu fi amati. lañ waxoon moom la ñuy wax mooy demoon nañ ba bind nii dañ koo autopsie ba pare loolu dindi nañ ko amul fi ci des mooy Cheikh Niass bi muy jógee bitim réew di ñëw fii dara mosu koo jot feebarut feebarut benn yoon euh, fi ñu ko def ak xeet ga mu fa doon nooy yi mënu ko supporter moo taxoon muy laaj ay garab mais Cheikh dara mu jotu ko dara jotu ko ba mu gëjee fii yàgg na kon bi mu tàmmee nooyu lii yàgg na kon ñu toog un jour jàpp la tëj la su euh, def la fu xat nga defa nooyu air bu bokkul ak beneen ak ku mel na Cheikh boo ko gisee xam na ni loolu day dem bu doon keneen a sax noonu lay def parce que lu am na ñoo xam ne xet gu bon bu ñu ko nooyee da leen di indil jàngoro ci saa si Cheikh jàngoroom indiwu ko fii mais ma ngi ko jëlee foofee parce que boo demee ba yëg jàngoro ju bees ci sa kaw force nga laaj ay garab yoo xam ne nii mën na laa dimbale pour nga génn ci loolu moo tax Cheikh Niass di laaj ay garab mais Cheikh andaalewul feebar def na test bi muy ñëw jabar ji bu ngeen ko gisee wala ngeen jot ko un jour dana leen ko gën a leeral mooy def na test dara jotu ko moom avant muy ñëw fii Cheikh ba fi ma la koy wax nii li ko jot mooy décédé bee mu décédé mais dara mosu koo jot. bu defee autopsie ba pare. topp lépp ba lu ñu yàlla jox ñu jël te di wax comme li euh, kii wax sànq mooy di wax ministre de l'intérieur mu jàpp ñu ci lii def liggéeyam ba mu mat sëkk te xam ne ñun ñëpp ay doomu réew mi lañu te it Cheikh woon na ci loxoom loo xam ne nii muy dimbale sax président de la république la ndax am na projet yu bare yu mu façon yoo xam ne waroon na koo def ci réew mi ñu baree bare doomu réew mi di ci gis seen bopp. lool sànq Ibrahima Sall ci ay kàddoom wax na ni yéen famille bi gisagoo leen ba léegi xamagoo leen ko bët teguguñ bët moo tax bi ñu waxee ñu bind ni Cheikh Niass def nañ ko autopsie defuñu ko autopsie gisaguñ ko te yaakaar naa ne bu ñu demee ba def ko autopsie xanaa duñ ko denc te yéen ñi teewee lépp du ko teewee mun ta ne force ngeen filmé xanaa nangam ak nangam te loolee amagut gisaguñ ko kon amut mais li ma mën a xam xamle mooy Cheikh Niass. fii la feebare mais ëndaale wu ko fi bi muy ñëwit def na test dara jotu ko soxna Awa Kondé ngi nii te xam na dana la wax lépp dara jotu ko def na test dara jotu ko Cheikh amul benn feebar fi mu noyee lee fa la feebare fa lay laaj garab yoo xam ne nii dana baax ci moom mën a tenir feebar bi mais Cheikh dara jotu ko dara jotu ko dara jotu ko dara ëndaale ko fi benn yoon ba bi muy jógee fii ci yaayam ñuy waxtaan ak yaayam ba génn fii dara jotu ko fii la yaayam toog di ko xaar oto bu réer mu ni seexee ñëw ndeke gaa yi jàpp nañ ko ci police ba fii ci buntu kër gi la fanaan ba bët seet ne xanaa seex da dul ñëw ndekete yoo seex bu ñu koy indi kees lañ koy indaale arama ngi nii sama mag la lii lañ ñu def mais li ma leen bëgg a xamal mooy lu ñu wax dara amu ci parce que am na benn média bu ñëwoon fii après mu bind ñu gis ko ci site bi mu ne waa famille seex nee nañ def nañ autopsie mort naturelle la wax wax wax mais loolu amul moo tax ñu bëgg lépp leer bi muy ñëw fii dara dalu ko des na test ñaari yoon avant mu ñëw Sénégal kon donc bu doon ne dara dal na ko du du ñëw Sénégal peut-être seen anam bi ñu ko téewee ak foofu na mu mel xëy na loolu moo tax yaram bi fragile muy laaj ay garab parce que xamul foofu ñu ko dugal mais dara dalu ko benn feebar dalu ko xëy na ñoom man man nañee ko saax saaxee ko ci doomu gor nag parce que seex gor la am na yoo xam ne boo ko defee gor daf koy metti moo xamuñu ko moo tax bu ñu nee war nañ ko indi garab daf ñuy jaaxal peut-être ay vitamines yoo xam ne war na ko jël mais amut benn feebar boo xam ne seex bàyyi na ko fii ay garab yu mu war a jël war a ordonnance amul fi ñu ko dugal ku ñu fa dugaloon te yaramam tàmm ko seen kii gis nañ ni mu mel ngunu gi naan sax ko tane xay na loolu moo tax muy laaj ay garab pour protéger boppam parce que xeet gi nekk foofu ak anam bi doy na waar mais dara dalul seex dama leen ko mu leer bu ngeen demee tamit aussi bu ngeen di def seen liggéey bind ngeen xamal leen ne dara dalul seex lu mu ko dal mu ngi ko dalé fi ñu ko jàppee ci police waxinaan bi mais fi dara datu ko fii ci kërëm bam fi fiy génn jotuñu police médecin yi gisuñu ci kenn jotuñu ci kenn dem nañ fa ñaari yoon ci famille bi mais mënuñu gis seex pourquoi mënuñu ko gis barki démb jabaram dem na fof ak samay papa ak affaire yooyu mais buñu demé mënuñu ko gis donc bu leeroon kon dañuy gis seex ñass ci morgo bi mais mënuñu ko gis depuis wa ba tey kon donc ya quelque chose Cheikh mu ngi hôpital Dantec yéen xam ngeen loolu n'est-ce pas xam nañ fu mu nekk mais mënuñu koo gis depuis ñaata jour moo tax ñu bëgg mu leer ñu ne na ngeen ñëw pour lépp leer en tant que famille bi ñu wax ne lii ñuy bind benn média boobu xaw ma lan loolu amut Cheikh Niass dara dalu ko lu ko dal mu ko dalee ñoom ci seen loxo loxoy police man maa loolu man en tant que sœuram léegi nag dañu bëgg mu dee réew mi am na yoon justice bi li ñuy wax tegu na ci dëgg nan ko leeral ba mu leer mbir mi leer de parce que du naax saay noonu rek de comme ni nga ko defee ñi passé deena deena mu jeex noon non non parce que bakkan la ñu jël du xar du ginaar doomu aadama boo xamante ne nii doomu aadama la woon fii ci biir réew mi nekk comme ñëpp joxo jotaguñ ci ba tey jotaguñ ci ba tey voilà. xanaa metti ba tey. niñ koy yëgee boobu fekk na ñëw nga ma wax la ko fekk na gaañu na ba mu def yaa deux jours yaakaar naa ñu soog ko yëg man mercredi laa ko yëg fii man maa ko wax sama yaay te li tax ñu yëg ko doomam bee la ñu woo wax ko ko kon donc nit boo ko jàppee mu nekk ci say loxo ba mu génn àdduna li gënoon a rafet ñoom nañu jël seen téléphone ñu woo ay mbokkam ah bëgguñu loo xam ne dafay naax saay nii dafa bëgg dañu bëgg mu leer bu jëlee suñu bakkan yi sax dañ ko ciy teg mais dafay leer merci